ni Bienvenue sur di Vision. merci beaucoup Birima donc euh, euh, Charles xanaa ñu ñu ñu repartiraat rek ci li ñu waxoon Adji Sarr dégguñ ko woon ba léegi je pense qu'elle la fait une sortie lan lañu ñu war a jàngat wala lan la ñu war a mën a xalaat ci génn googu mu génn wax wax sa version des faits. tu mal fait de commencer par moi. Hmm. fii laa fi toog que tu ne pas suivi. non pas du tout. Hmm. je l'ai dit. fii laa fi toog ne man dama dugg vulgarité. Mm. yar yoonu ma si bàgguma si yàlla na ma si yàlla musal lu may def sama concert mais dégluwoo ko man xam ni c'est vulgaire <laughs> la vulgarité mm. boo xamante ne moo indi lu ñuy dund nii parce que nit ñi j'ai jamais vu euh, euh, Birima j'ai beaucoup de beaucoup de respect pour toi ànduñu si lu bëri mm. mais il est hors de question ñu ñëw di la fekk sa kër au nom d'un principe pour mun a def lu ñu def c'est ça les vérités qu'il faut dire il y a des choses yoo xamante ne c'est de les je suis pas un spectateur qu'on appelle dans une argonade de sexe ou de je ne sais quoi encore pour ma toog fii di fi wax je suis désolé du ma perte suma temps si loolu du ma si temps du ma si perte suma temps si les Sénégalais ça les intéresse de parler de cette affaire d'ailleurs man je l'ai dit ce matin il va falloir qu'on aille chercher benn psychanalyste wala benn psychologue c'est la même chose pour mu xool suñu mind un peu qu'est-ce qui va pas nous pour que ñu toog di wax loo xamante ne ay waxu xëf kasaw ñàkk fayda yóbbu ñu si terrain boo xamante ne alors que mun nañ ko fa waxee fu ñu koy waxee tranché bu fekkante ne loolu def dans un pays civilisé on ne perd pas de temps avec des choses comme ça mais il est vrai que tey maxalla nous sommes comme le dit dans un, grand ami à moi Libaska maa ngi lay nuyu bu baax a baax nous sommes dans la moyennisation on fait les choses de manière très moyenne nous sommes dans la médiocrité boo xamante ni qui s'exprime le mieux et le Sénégal retient son souffle la fois loo xamante ne ça s'est passé dans une que le Sénégal retient son souffle ça veut dire il faut un psychologue pour tous les Sénégalais la vérité c'est ça cette affaire là wax nañ si indi na lu fii indi si biir Sénégal bi nit ñi teg si seen bopp biir yi ma nit ñi dem këram def lu fo fa mu c'est-à-dire il est impensable ce qui s'est passé on l'a fait mais c'est-à-dire moi je vais pas parler de cette affaire là il va falloir que les gens prennent toutes leurs responsabilités xam nga nit ñi nañu jël seen responsabilité mm. waaw il est hors de question que dans ce Sénégal ñu toog fi les institutions soient à terre tout soit à terre nit ñi toog di ki et qu'on prenne ce pays en otage tey mënoo bind Facebook sans pour autant ñu yàkkal la ay saaga des gens que tu n'as jamais vu de ta vie mais où est-ce qu'on va c'est la terreur qu'on installe dans ce Sénégal nga ñu wax ay waxu Adji Sarr ni je veux dire et là c'est-à-dire moi j'ai pas de problème Très rapidement, tu as dit prendre, il faut que les gens prennent leur responsabilité. Il faut Moi que les gens prennent leur, leur responsabilité et qu'on arrête, et qu'on arrête d'exposer. Mmh. parce que lu fi xew actuellement on expose qui contre qui ou à la merci de qui mais on sait ce que des gens se rendent compte depuis quelque temps dans quelle situation de terreur nous sommes en train de vivre ñu may wax qui va parler pendant deux heures ou une heure je pas moi dama toog gis ñëpp taxaw téye sa téléphone di seetaan mais c'est d'abord la justice cette affaire-là que la justice fasse son travail en point final c'est tout et beneen affaire contrairement à tout ce on peut ne pas on peut ne pas avoir confiance à sa justice kooku d'accord naa ko mais lu ma fi dëgg moom ma xaw a jaaxal on a cautionné le non-respect envers nos institutions ici sur ce plateau et ailleurs et loolu ça ne peut pas marcher dans un pays dëkk mun nga bañ a am confiance mais mu bañ a respecter parce mm. que ngay wax bi fa le ministre pourquoi ñu woo ko c'est parce qu'il respecte les institutions Mais on peut, on peut maintenant dire moi je n'ai pas confiance au président je n'ai pas confiance à l'appareil judiciaire je n'ai pas confiance à l'Assemblée mun naa wax loolu mais je dois je me dois de respecter parce que si le respect disparaît mais qu'est-ce qu'il reste dans une nation après on vient parler d'Adji Sarr qui a parlé pendant une heure temps sur des choses yoo xamante ne kenn xamul est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai je vais pas perdre la euh, première prise de parole de Adji Sarr grand Badiane laa bëggoon nuyu hmm? parce que man seen gàlle amoon ñaari footballeur yu aay non dëgg la grand yu mënoon football doon joué AS Jubo yaa ngi dëkk wetu terrain Jubo n'est-ce merci oui oui parce que da bëgg a grand seen gàlle ñaari grand yu mënoon football kenn ki yàlla na ko yàlla xaare àjjana kenn ki mu ngi Espagne. kan ma Malal ak yow waroon nga xam Sidi Kër normal ma. ak laay sant ah. ñoom ñëpp bu baax. jaajëf grand bi nuyu nga ko fay na euh, Charles je suis d'accord quand tu parles de respect mais le respect il est réciproque. Hmm. oui hmm. il est réciproque mais mmh. il est réciproque et il faut aussi que ceux qui incarnent les institutions respecte les Sénégalais. parce que on a mis des institutions pour les Sénégalais. Donc on ne va pas remettre l'huile sur le feu. li dal Birima kenn yéenewu ko ko man personnellement yéenewuma ko même si je n'ai pas eu le temps de l'appeler et j'en ai discuté mais tu m'as oui je appelé pour effectivement pour s'enquérir de ses waaw loolu moom dëgg la s'enquérir de ses nouvelles kenn yéenewu ko parce que Birima bu rombee ay plateau yii nii man ak moom on se parle dañuy déggante ci ay ci yeneen i affaire di waxtaan ci leneen ak leneen loolu duma bàyyi ma fen à mon pire ennemi personnellement du ma ñaanal kenn ñu taalal ko këram parce que kenn warul kenn warul taal kër kenn loolu luñ d'accord la quoi euh, mais pour peut-être il ne faut pas aussi négliger diir que effectivement wii man duma déglu Adji Sarr Charles, moi je trouve que tu es très contradictoire. Tu as discuté ici de Adjissar. Ah, on peut remettre les images, je dis que c'était d'une vulgarité oui, dans laquelle oui, je ne défendrai mais pas. Nga fi si euh, waxu Adji Sarr Non, je l'ai dit, on peut ressortir les images. Hein. VAR baa ngi fii xam nga tey dafa am VAR. Oui, waxtaan nañ fi ci. Man daal waxtaanuma si lu bëri. Oui, mais ñun ñëpp waxtaan nañ si. Waaw, mais donc. Euh, Et puis aussi sujet bu intéressé Sénégalais yëpp la xëy na. kenn si ñun xalaatul woon ni sujet bi dina yóbbu fii réew mi moo tax ñu war a def un peu attention mm-hmm. loolu tout le monde est interpellé mm-hmm. moi en regardant Adji Adji Sarr j'ai vu une fille fatiguée une jeune fille fatiguée très fatiguée qui qui n'a même pas envie de parler et qui parle mais li jaaxal ci affaire bi mooy on a dit quelque part juste bi ñuy bàyyi Sonko mu ñibbi këram on lui a dit que amul droit waxaat ci affaire bi et apparemment Adji Sarr également a été entendue comme ni ñu entendre Sonko et effectivement elle est en train de parler est-ce que elles sont est-ce que ces deux personnes ci kanamu yoon est-ce que est-ce que yamale nañ leen c'est c'est la question que juste pourquoi elle parle et pourquoi Sonko n'a plus le droit de parler après avoir été entendu après avoir été entendu, c'est la question que je pose. Mais j'ai vu une jeune fille très fatiguée et qui mu donne l'impression d'avoir, d'en avoir marre, qui n'a plus envie de se prendre, qui, qui, fatiguée, quoi, en tout cas. Qu'en fait, dafa mel ni sax en réalité dañ ko naan waxal te bëggul wax donc pour man euh, s'il y a des gens derrière cette affaire il faut arrêter cette affaire tout de suite looloo ci sama xalaat waa der xam nga man li ma ciy wax lu la leer la Adji Sarr sénégalaise la tey laa mus a gis nit ku taxaw di wax xalaatam nga naan ni mu waxee wóorul waxee nii loolu amul importance intéressul Sénégal yi la Sonko di def ak la muy wax intéressul Sénégal yi la Adji Sarr def ba intéressul Sénégal yi li am intérêt Sénégal yi aujourd'hui mooy un problème am na benn problème am na ci réew mi malheureusement ça concerne deux personnes mais malheureusement pour le Sénégal les Sénégalais fay nañ ci mooy tey ay nit ñàkk nañ ci seen place liggéeyukaay ay nit dee nañu ci ay nit toroxal nañ leen ci lu ne am na ci et heureusement Dieu merci man je pense que musuma gis euh, seetaankat bu gën a bëgg a sonn kii football ñoom ñaari gor la ñu am problème man fekkewu ma te man li ma xam li ma war a wax dëgg laa waxaat tey et je le je le répète mille fois àll yéwén àll yéwén man biri Birima Ndiaye xawma lu fa xew gëmuma Adji Sarr gëmuma Sonko li ma gëm mooy Sonko nee na dafa yàkkamti procès bi am je le je dois respecter le monsieur moom moom problème amu problème nee dafa yàkkamti procès bi am la dame la plaignante nee dafa yàkkamti procès bi am mais sëñ bi li may ñaan bu boobaa yéen journaliste yi xam ne ñu fi nekkal yan la procès bi am ngeen wax ngeen teg nit ñi xam la fa xew lan la bu jugement bi jaaree tous les Sénégalais sóoroo ko jugement bi jaar na bu jaarul yoon ña ko def ñoo tooñ réew mi am seen je pense que aujourd'hui ñoom ñaar ñëpp ñoo wax waxuma de man ñoom ñaar laa dégg ku nekk ne yàq nga yàqamti procès bi am te fi yëf yi nii tey je pense que procès bi am mooy la moindre pour nit ñi am jàmm pour nit ñi am jàmm man je pense que débat bi moo war a jeex liñ war a wax du loolu du problème moo war a jeex débat bi lañu war a jeexal hmm. ñu bàyyi leen ñoom ñaar bu ñu wanee waxtaan ñoom ñaar ak seeni nit wala ay mbokk en dehors de de de plateau yi nangam ba juboo ñoom ñaar kii retiré wala ñu ànd ñoom ñaar la intéressé man amu ci problème bu ñu mënul juboo ku kulli àlli yoon àtte la rek moo fi sës hmm. bu leen yoon àttee comme ñu fi dafa laal Sénégal te mën a yàq réew mi nañ ko defee noo xam ni ñëppay xam lañ fay wax La seule chose, Charles, qui me dérange dans cette affaire, on est en train de servir à nos enfants man de laa lay jox quand Adji Sarr parle dama toog ci saal bi sama goro ak sama doomi ndaw mais nga bi wax ji commencé sama goro dafa rus ba dafa jóg dem du suñuy valeur et surtout vous allez assister au Sénégal et c'est malheureux c'est vraiment malheureux ce serait un procès pornographique est-ce que tey en deux mille vingt et foofu la Sénégal waroon a toll est-ce que tey bu ñu ko gérer woon dès le départ de de de tous les partis dina si fii tey ba nekk ñu média. Euh, euh, pardon lan mooy gérer tamit comme tu as dit. ñaari problème ñaar ñu am problème ñu war a laaj convoqué nañ le ministre de l'intérieur français moo doole seen doole ministre de l'intérieur seen euh, France ministre de l'intérieur France lu am doole la pendant neuf temps ci bureau juge benn avocat la àndal mais toole bi coow bi am coow boobu am ko man doon naa comprendre man li ma comprendre mooy te d'accord am nañ ci droit man tey Salazar sama leader politique bu koy boon atte ko dinaa suivre atte bi su atte bi jaaree yoon ma xam ne jaar na yoon bu jaarul yoon ma kaas mais malheureusement dañoo atteegul tool dafa jiitu fee yi na foo xam ne jiitu la ko nañu bàyyi dalal xel yi ñu delloo si xel yi ñu bàyyi ñaar ñi nga xam ne ñoo am problème ak seen problème parce que aussi nag il faut ñu xam ni xam nga man euh, mere naa trop trop trop trop passé na soog trop Ousmane Sonko man dama ko mere mais en retour aussi góor la comme man borom kër la comme man yërëm naa ko sa extrêmement dur dal ci kawam billaahi wallaahi talaahi yéene ma ko jërëjëf na donc mhm. li li may mën a wax mooy nañu bàyyi dossier bi ñoom ñaar ñu waxtaan maintenant Malal man je suis pas d'accord vous dites aux Sénégalais tey Adji Sarr waxul yow ñaata plateau télévision nga taal ci réew yéen ñi ànd ak euh, euh, Sonko ngeen di réclamer Adji Sarr na wax il est dañ ko dañ ko dañ ko. man nag ma musa dégg ma ne ko. wax mais waxuma la mais say ñi nga àndal laa wax ñi nga bokkal groupe. ils l'ont dit partout kan pare non du ma man passé naa tur ay tur waxuma lu mais dama ni dégg nga ñu ni na Adji wax ils ont réclamé Adji Sarr Adji Sarr est où il def na nangam Adji Sarr a parlé toog naa fii émission jàkkaarloo yéen a ngi rappelé loolu El Malick moo toogoon fi man ko yéen ngi réclamé pour Adji Sarr wax mais je te dis une chose le jour que Adji Sarr waxee dootoo waxati maa ko wax fii yéen ko rappelé hmm. man waaj teg ma micro bi li may wax gis nga yéen ñi doon wax naan yéen ñi doon wax na aji saaro aji waa saaro ak di jafe en réalité ñi ànd ak Ousmane Sonko ñoo rendre service Ibrahima Ousmane Sonko loo faral faral nit da koy faral ak xel dafa am dossier yoo xam ne sama benn papa ma ne woon doom jigéen kii dafa du xuloog moom aji saar na absolument rien à perdre dans ce dossier kii aji saar kenn xamul aji saar Adji Sarr lu wax ji garaaw garaw dans deux mois bu fees yeex ñu fàtte ko mais Ousmane ko fii ba éternité fii ba mu dund heure bu génnee kilifa la ci réew mi donc yéen ñi ànd ak moom yéen ko dimbaliwul c'est ça la vérité sëñ bi nañu bàyyi ak yoon doxal yëf te yéen journaliste vous avez rendu avec le peuple sénégalais de dire exactement les sénégalais lan moo fa xew lan lañ fa waxante ñëpp xam ko bu bu paasee ku ne xam ban conclusion nga ci am. Pape Djibril bismillah. gannaaw bi ñu la ziyaaraatee mhm. la sortie de Adji Sarr kàddoom yi mu yékki loo ci jàngat di di di tudd naa léegi Daaru Muxti mais sànq mhm. lañ may yónnee benn information di ma wax ne ma Cheikh Ahmadoul Moukhtar Mbacké mhm. aussi qui était sénateur du temps du régime socialiste moom aussi dafa wàcc liggéey waaw oh. ah, Cheikh Ahmadoul Moukhtar Mbacké moo ngi dëkk fii euh, Sicap ñu ngi koy jaalee njaboot di di leen masawu. si biir de la république ci côté bi di ñaan suñu borom mu xari ko aljana yokk ku yërmande. amiin. Euh, di wax rek ne Charles wax na ko léegi je pense que malheureusement on a tellement d'urgence dans ce pays e que am na ci ñoo xamante ni dañoo denc seen njaboot ñoo ngi nekk di dëj fi mu ne. am na si ñoo xam seen njaboot a ngi hôpital xamaguñ ci lan la ñuy nekk ñii dañuy génn am na ñoo xam dinañ génn te duñu génne ay cër et justement boobu ba tey dégguma commission d'enquête dégguma autopsie sax ci ñi nga xamante ni daanu nañ man xawma laa dignité humaine fan la toll ci sunu réew très sincèrement je me pose énormément de question par rapport ak euh, sunu sunu ëllëgu réew bi nga xamante ni moom la ñu bëgg moom la ñu bëgg a tabax dans cette affaire la ak soxna Adji Sarr du ma dugg sax nii ci forme bi nii ci fond bi waaye damaa gis bi mbir mi jógee ba am fu mu toll am ay institution non constitutionnelle yoo xamante ni dañoo duggoon ci mbir mi ba sori ci keroog sëriñ Mansour bu maam Abdou Aziz Sy baax bi muy def conférence nekk porte-parole keroog fële ci grande mosquée dafa wax ne ci biir waxam mu ne dem naa sama kër sax naa ni garab pour ñëwaat pour continuer wax bi parce que boobu il fallait désamorcer la bombe a tout prix mun Mountakha def ci une implication extraordinaire ba ñu ñëpp ak am na sax ñu dugg souterrain ñoom it dox ci ay tànk ba loolu moo tax keroog bi ñuy bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram Samba Sall ne ko dossier bi bul ci waxati mu ne dootuma ci wax je n'ai pas compris quand on a annoncé la sortie de Sokhna Adji Sarr j'ai pas compris sa prise de parole ak en l'état actuel du débat est-ce que du apaisement boobu ñu ne woon ci la ñu war a dem pour xool mbir yi nan la ñuy def ba nga xamante ni les la volonté exprimée des deux côtés mooy qu'on aille vers un procès équitable et systématiquement il y a une rupture d'égalité on va aller vers un procès équitable tout le monde souhaite y aller apaiser nañ et il y a une rupture d'égalité. La principale concernée prend la parole pour évoquer le sujet, le secret de l'instruction, alors qu'entendre nañ ko ba pare. Alors qu'à partir du moment où les deux parties sont entendues, la donne change totalement. Instruire nañ. Donc pour man aussi c'est tellement bien qu'à chaque fois que ñu revenir sur les fondamentaux Charles wax na ko léegi ba wax institution wax respect de l'institution malal ne ko la le respect la réciprocité ci wàllu respect boobu donc ne serait que ci principe bi waroon nañu déggaat le juge mu daal di évoqué waat ne wax na ne bu ci kenn waxati waaw parce que forme bi ak fond bi wax naa ne man du ma ci dugg honnêtement même bu fekkee ne loolu laa jàngi woon école waaye duma ci dugg ci wàllu image ak yooyu mais daal li ma bëgg a wax mooy faisons attention ay kilifa dugg nañ ci ba wax ci kilifa wax jox kilifa mu wax ba nga xamante ni actuellement ñoo ngi doon nit ñaa ngi doon delluwaat ci seeni kii les la volonté exprimée des deux côtés mooy un procès équitable donc nañu bàyyi rupture d'égalité bi mm. parce que bu kii waxee keneen ki génnaat wax rek mbir yi mën naa jaxasowaat ba eggaat foo xamante ni day jéggi dayoo man c'est ça mon sentiment jot naa ay info man du ma attention. Hmm. secret de l' instruction beeg yooyu sa concerne les avocats ak ki nekk su contrôle judiciaire. la mais la pla euh, ah non. man dégg jànguma damay wax. non non Balde est juriste la plaignante. non Balde est juriste. waaw moo tax dama man man li la dama ne mais pas la plaignante. pas la plaignante. parler. Hmm, hmm. dañ ma ni avocats yi ñoo amul droit wax ci. des deux bords ak ki nekk sous contrôle judiciaire hmm. mais la plaignante, mais la plaignante parler. loolu la lañ wax xaw ma nag man nag du ma jur. yéen ñi xam jur mais loolu jot naa ko Sénégal dëkk. allez euh, Bouba bismillah. <clears throat> Ah, waaw de aji saar yi. waaw ñëpp ko doon xaar Sénégal li nga wax. waaw dama foogoon nag may danga may joxaat parole bi parce que tamit mënu ma nekk. bismillah waaw mënu ma nekk taalibe Seydina Limaamu Muntazar naan maa ngi. ziaral maa ngi wax fii maa ngi wax fii te. waxoo ci appel bi. waaw suñu appel bu. même si c'est avec des mesures barrières waaw mesures vraiment ñu def ko oyofal. weesu ah, na. donc euh, li am li am solo moo parce que effectivement dañu jëloon ay dañ ko def voilà euh, dañ ko def donc may may may ndokkeel sama axru laayeen yëpp sama mbokku laayeen yëpp ah di ñaanal Serigne Abdoulaye Thiaw Laye yàlla ko fi yàlla bàyyi di féliciter aussi euh, même bu ñu nekkee ci ci cadre boobu cadre bu restreint boobu may féliciter tous les techniciens de du groupe Futur Média mm-hmm. parce que fu nit toll rek ci àddina bi woo na ma ne ma appel bi même bu ñu ko kiiwee di ngeen jël euh, seen ay matériel def direct def yëpp te loolu dafa am solo moo tax may te loolu wax dëgg yàlla euh, damay seetlu bu màggal Tuubaa jotee wala gàmmu Tiwaawan wala appel wala gàmmu njaasaan wala euh, euh, gàmmu ñaseen euh, ma gis ñi nga xam ni ay jeunes lañu vraiment ñu nekk di liggéey sur le terrain liggéey bu am solo pour que nit ñi nga xam ne demuñu sax ñu koy mm-hmm. dund ko donc mooy ciy profiter pour wax leen que ni surtout ñuy yëngu ci mbirum diine au niveau de de la télévision ak du groupe vraiment maa ngi leen di féliciter yéen ay jàmbaar ngeen bu baax te diine bi dafa am solo et puis même bu dul julliti même waa jàngu bi aussi dem donc vraiment ñuy féliciter tous ces jeunes là qui se battent pour que nit ñi au moins ñuy gis événement yu mel noonu. di profiter aussi di wax que ni euh, mbirum Adji Sarr bi euh, semaine dernière euh, vraiment am na ñu bëri ñu ma woo may vraiment rafetlu kàddu yu bëri ak ni nit ñi apprécier yenn kàddu yi vraiment ci suñu jëmm yu xeebu yi. Euh, du ñëpp ñooy d'accord mais dama leen koy delloo aussi parce que yaakaar naa ni am naa ci feedback bu bu positif. di ci profité di wax que ni aussi ay nitu neen lañu rek mm. euh, des fois di nga wax sa yaram tàng ba nga sax màtt sa làmmiñ te doo ko tey mm. may parce que wax naa fi ba tudd euh, ay kàngam yu fi jóge yoo xam ne jóge nañu woon ci kër gi peut-être que j'ai parlé avec le cœur. Mm. mais def ci am ñoo xam ne dama am ak ñoom ay relation yu particulière yàlla xam na ko billaahi wallaahi taalaahi lépp lu xew fii ci kër gi lépp lu xew ci feneen ak feneen ñi may njëkk bind Mamadou Ibra Kane la ak Alassane Samba Diop donc ma leen koy dekk delloo njukkal yàgg nañu Alassane c'est mon frère donc bu dee wax ji am na dara loo xam ne euh, xaw na leen na naqari maa ngi koy maa ngi koy retiré mm-hmm. parce que vous êtes mes frères te lu ñu boole moo gën a fort ay wax waaw kii la jege nag des fois mooy wax kii mais ma ni chaque fois ma def allusion à Khalifa Diakhaté ak keneen ak keneen ak keneen voilà donc maa ngi leen di maa ngi leen di bu fekkee ni vraiment wax naa leen dara loo xam ne xaw na leen kii on est des yàlla xam na ko donc maa ngi koy retirer euh, parce que euh, intention bi c'était pas wax vraiment loo xam ne euh, dafay ñagas ci suñu diggante parce que xaju fi donc ma leen di jégalu di ca yaatu di ko tu merci jaayuma la nag quoi damay xuloo yow. merci gis nga fi nga teg sa tànk. Mm-hmm. bu ko teg. Mm-hmm. Sénégal yëpp xam ne nitu jàmm nga mm-hmm. foo fekk ñaar ñu réeroo dox nga ko mm-hmm. foo fekk lu bon dox nga ba lu baax am fa ku bëtam xonq yow lay njëkk a gis mm-hmm. man je tiens à le man lu dal ci man yow laa njëkk a gis feebar naa nga ñëw di jooy sa yaay woo ma téléphone nit ku baax nga yal na la yàlla sax waaw di rafetlu aussi di wax que ni hormis li nga xam ni xew na fi passion dugg si ñu wax si wax yu bari yu metti euh, li nga xam ne moom pour man moom moo ñuy symboliser ñun waa Sénégal moo tax à chaque fois bu problème amee bu ci issue bu maanaam bu kii lu rafet génne dañ ko war a rafetal dañ ko war a fësal tey on a reçu euh, Sonko président Ousmane Sonko bu parti Pastef ñun ñëpp ay sénégalais lañ dënn yi mën na kii mais bu ñu toogee peut-être yu bëri li ñu naan peut-être des fois sax réeroo amul ñàkk réeroo moo am mais képp kuy ñëw ci tele bi rek bunt bi ubbeeku na noonu amu fi buñ la bañ a d'accord mais daal may remercier ñëpp quoi di wax que ni vraiment à la fin de la journée cette affaire la comme ni ko gars yi waxee man je persiste et je signe parce que fu treize nit génne àdduna fu ay nit ñàkkee seen bakkan dafa war a leer je persiste ma bu mbir mi leerul man je suis même près à porter plainte man sama bopp parce que euh, moo tax euh, ci lu mel nii ku nekk di si génne sa kàddu war nga xool bu baax parce que wax dafay des gis nga mbir mi boo ko génnee ci cadre bi mu nekkoon passion dugg si am na mbir yu bëri yoo xam ne peut-être musuñu ko woon xam senegal juddu na ci mbir mi donc may may ñaan ñëpp ak retenu ñu bañ a engagé dara loo xam ne ça n'a rien à voir avec cette histoire la mois j'aime bien les gens qui se battent pour la démocratie parce que une partie de ce combat là amoon na partie euh, combat boo xam ne pour les acquis démocratiques ci dëkk bi ñu dox ko il faut que ñu concéder loolu à des gens parce que quand je vois par exemple Y'en a marre euh, du ma leen ne da ngeen ànd ak euh, Ousmane sonk non je considère que dans cette histoire là vous avez vu benn problème boo xam ne dafa peut-être menacer suñu démocratie ngeen taxaw te loolu il faut ñu nangul ko ñëpp mais dans cette histoire là ak responsabilité ñu bañ ci junj loo xam ne góom boo xam ne la day naxaree faj moo tax ñuy ñaan yàlla rek parce que bëri na dem nga Côte d'Ivoire dem nga Rwanda dem nga dëkk yooyu yëpp mu commencé ci dara loo xam ne lu ñàkk solo la nit imaginez risques yi fi nit courir yëpp ah, tey jii nii ñu demoon attaqué RFM wala ñu attaqué kii sànni fi xeer toj bopp nit benn journaliste faatu si wala benn nit faatu si tournure bi mën na changé moo tax yu mel nii su amee ñu am ay kilifa xam nga bu ñu demee ba ku mel ni sëñ Muntaxa wax non waxuma sax loolu imaginel su waxee lan moo xew teggin gi ñu koy nettalee lan moo fi xew xam nga doy jéggi na dayoo jéggi na dayoo donc benn moment moom laay wax nii dafa am lu fondamental loo xam ne ñun ñii ñëpp dañ ko war a convoqué mooy que quel que soit lu am ñu jël dara li nga xam ne moom moo fondamental te mooy sookul bi ñu téye comme société mm-hmm. ñu bañ ko réere mbir maintenant nag li biri ma wax d'accord naa ko dafa am doo xam ni c'est fondamental loolu mooy richesse bi ce plateau là li bu doon ñun ñëpp bu ñu ñëwee ku ne wax li nga ci benn boor bi du am sens loolu ne buñ ko nañ ko nangul ñëpp mais ci biir même bu tàngee moo tax même bu affaire nekkee ci digg bi ñu ànd ak tuuti maandu parce que boo seetee ba seet discours yi boo seetee au début vers la fin dafa commencer di changer et moi j'aime bien être constant man bu dama bëgg bu may wax dara ci njëlbeen ba ba mu jeex ma garde sama conscience buñ may rey sax parce que damay yaa damay jàpp ni su may wax dara dama koy wax parce que loolu laa gëm donc je pense que dans cette histoire là nañu nañu situer responsabilité yi il faut que ce truc là mu leer parce que yoon mi ko mais nañ ko bàyyi ak yoon parce que même war ma war ma parce que xam nga dañuy wax que ni ñun dañu fonk jigéen dañu bëgg a def ni même war ma ah man je veux pas j'ai sama yaay gis benn xale bu am vingt ans toog ci télé bi di wax ay wax yoo xam ne munuma ko imaginer ça veut dire que pour quelle raison ça veut dire que bu ñu nee diw na waat ne musuma musul séq ak man ak diw na waat ni musul ma violer c'est deux choses complètement différentes comme complètement différentes après tu te dis que lan la nit ñi di seet mais lan moo ko fi jar ba ñuy ba ñuy ba nga xam ne ñuy am kerse ñun ñi ñëpp ay ay xam nga dangay toog di seetaan ak say doom télé sax dara benn affaire dem sax ñoom ñu def nii parce que loolu lañu ñu yaree mm. mais loolu base yooyu ak fondement yooyu buñ ko perte lan lañ mooy dese donc quelque part pour man lépp lu problème mënti am dafa am loo xam ne muy muy muy muy li ñu moom dañu ko war a njëkk jiital teg ko ba pare ne kenn du ko laal garder ko maintenant nag autour de sax ku nekk war nga am sa position mais dans cette histoire là il faut mu mu leer parce que euh, mi ngi si yoon loxo yoon Ousmane Sonko d'accord na dem Euh, euh, euh, kii Adji Sarr d'accord na dem mais ñu bàyyi ko foofu mu continuer pour wor ma réew mi pour wor ma suñu mat ñi ak suñu wor ma ñun parce que imaginez ça sa quatre semaine ou cinq semaine à chaque fois nga fekkee woo fekkaanoo nga sol sa yére ba mu set ñëw di wax wax yi wax ji mhm. finalement on a t'as envie de de passer à autre chose mhm. t'as envie de parler d'autre chose aussi Charles dafa wax benn affaire bu am solo benn moment aussi même ñun man ça me ça la peine maintenant ñëw chaque semaine ma ñëw di wax ci loo xam ne wax fa dëgg yàlla à mi day dem ba tuutil la ci ay terme ay wax yu kii. Hmm. nañ leen xaw a quand même li nga xam ne ñun ñoo ko moom. mais li si des comme yoon dugg na si ah nu mu mun munti demee que yoon day dox yoon wala dox yoon mi ngi ci loxo yoon nañ leen jox responsabilité boobu mais quand ñu commencer un peu revenir si li nga xam ne moom mooy fondement yi parce que bu ñu defee nii en tant que peuple tey jii nii bu bu ñu beneen dëkk attaqué woon ñaanu ma ko yàlla ñun ñii ñëpp ay sénégalais la ñuy doon te loolu je pense que dafa am solo. benn passeport bi lañ yor benn carte d'identité bi lañ yor tey jii nii bu bu Sadio Mané dugalee bi Liverpool mais dañ koy bég parce que sénégalais bi moo nekk te loolu il faut ñu koy convoquer te loolu moom mooy dëggal ko donc pour ne pas monopoliser la parole vraiment je pense que man man man foofu laay waxee maintenant war ma bi nañ ko def comme affaire bi mu ngi suivre son cours ñi ngi xaar que mu dem jusqu'au bu pour ñu xam situer responsabilité yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir mbir mi parce que wax naa ko encore pour tëj xale bu am vingt ans Adji Sarr mii ma gis mënul jaaxal gars yi ci dëgg feeñ xaw ma nu nu tribunal di demee waaye bu dee taxaw rek jàkkaarloog dix avocats ñu lay laaj. non non am avocat yi taxaw. Ah, ah. kii di wax kii di ah, kii plaider. je ne vois pas si ak ni ñu xarañee fii ci réew mi. Hmm. benn xale bu am vingt ans xaw ma fu mu mën a jaar gars yi ba nax donc en fait en réalité it's so easy. affaire bi dafa yomb régler bu ñu ko compliquer on n'a pas affaire à benn benn professeur de mathématiques de science hein. quand en entends la fi parler man mii su ma doon juge mun naa wax ak moom dinaa ci génne dara parce que am na fu muy toll boo amee dix avocats yu taxaw nii dix yu taxaw nii mais let's let's let's let's let's fight man dëgg la ka loo kam combat bi. yow léegi juge nga. non mais xam nga fi may waxee quoi donc quelque part pour man lu simple la ñu jël compliqué ko quoi. et buñ et buñ ko jéemee compliqué day mel ni dara dafa nekk ci ginnaaw. waaw merci. voilà donc dañ leen delloo si suñu warma bi si suñu réew mi ba leen di gërëm di <laughs> sant. les deux personnes bizarrement boo déggee seen wax. merci ñoom deux personnes dañoo respectante ah. Hmm. il se respecte il se respecte Adji Sarr tu vu dégg mu ni bi ma demee ci juge bi bëggumoon sax lu ko naqari. bëgguma soñ jàpp ko damaa bëggoon rek. waaw mais mais mais Birima xam pour non pour rek. non non Sonko si buy wax Birima Birima fu ñu Birima je suis. les deux se respectent non non Birima ñun supporter yi ñoo vulgaire affaire supporter non non Birima Ndiaye. ñu supporter ne les deux se respectent Birima Ndiaye. bis Ndiaye se respecte Birima Ndiaye je suis désolé. je suis désolé je ne suis absolument pas d'accord avec toi hmm. bis bi nit jógee ne nit. yaa ma violé fa la respect jeexee waaw loolu dëgg la tukki na tukki na bu yàgg allez Papis Diaw non je suis d'accord <laughs> Papis je suis d'accord nga baal non wax nga ma dëgg en fait ñaari ñaari kii la benn bi déjà damay inscrire ci sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi xaar véritablement dans les meilleurs délais possibles ñu xam ne li andi fitna bi Sénégal lan moo ko waral ak njaxtal bi euh, la finalité c'est quoi qu'est-ce qui s'est réellement passé ñu am l'information ja dama bokk Sénégalais yu ko yu ko yu ko yu koy xaar quoi en tant que citoyen benn mooy c'est par rapport ak contexte bi ak li nga xamante ne xëy na les gens n'en parlent pas beaucoup mais dafa am essence dafa am solo muy la justice dans cette histoire mhm. la justice sénégalaise dans cette histoire Euh, il y a quelques jours wax avant ñu yegg fii. Mhm. avant les émeutes je disais que euh, à quelque chose malheur est bon histoire Sonko bi ak. Euh, ak Adji Sarr ça devrait nous permettre bu ñu si génnee ñu taxawaat xoolaat suñu justice xool comment elle fonctionne quels sont ses tares quelles sont ses forces comment comment comment comment parce que c'est une occasion parce que avant l'histoire daal di am le sujet était récurrent c'est dans la perception que les gens ont de leur justice et tout muy lu doy waar benn bi mooy les gens oublient que ces juges là c'est des Sénégalais ay Sénégalais ñoo nekk ay juges comme yow. Mm. Euh, lenn si ñenn seen sentiment ils ont très mal am na si juge ils ont très mal. Mm-hmm. les juges ont très mal malheureusement dañu am obligation de réserve maanaam ñoom seen liggéey mayu leen ñuy wax ni si public nii mooy obligation de réserve maanaam dañuy war am ànd noppi parce que li ñuy gérer moo moo mel noonu. ñu préciser benn affaire dafa am dafa am dafa am juriste am juge. Mm-hmm. dafa am juriste. Mm-hmm. am juge. du ko jàng droit rek moom mooy juge non. ah Balde Balde juriste la mais. du juriste la mais il n'est pas juge. Ouais. Et, je suis content de de dire devant un juriste. Mm -hmm. sous su ma su ma waxee njombe rek pes ma je te le permets. Mm -hmm. il y a juge. Mm-hmm. je rappelle pour que sénégalais yi ñuy nekk sama niveau ñi ñuy yorul amuñu ba njàng nekk si suuf pour ñu comprendre ante le juge c'est d'abord par concours da ngay def concours jongante. ñu tànn la si ñi nga def concours yow mi am sa ay lijaa sa droit nga ñëw ñu dañ lay comme ni ñuy former journaliste comme ni ñuy former ingénieur ñu dañ lay jàngal tàggat la ñaari atu yàlla ñu lay jàngal nooy atte atte ak droit bokkul mm-hmm. lii droit la xam ko la lii atte bi la dafa am lu ñuy atte c'est un métier en fait liggéey la dafa am lu mu àndal lu muy laaj lu muy a autant de problèmes moo tax il faut que les gens s'arrêtent un peu. On, va dans un monde de plus en plus turbulent. Mm-hmm. Tous les pays au monde, je dépasse le Sénégal, partout sur ce globe, fait pour justice amul taxawaay, ce sera la catastrophe. Mm-hmm. Pour une simple raison, benn rek moo tax. Parce que toutes les confessions sont, sont divergentes ou différentes. Sa confession bii la, kii confession bële la. Il n'y a les notions de nation sur la base d'une justice qui réunit et qui impose à tout un chacun un comportement qui confère à l'individu également sa citoyenneté parce que ci la bokk mooy nga nangu leen affaire du ay gëm-gëm la da koy nangu toi tu la confession mouride da nga gëm Sëriñ Tuubaa parce que c'est une conviction c'est ici or pour la loi c'est une obligation tu adhères à ça mooy projet société bi mm-hmm. c'est extrêmement important mm-hmm. man damay ñëwaat si li ma ñëwoon avant ñu def émat bi et je dis que c'est l'occasion ou jamais pour la justice sénégalaise pour les acteurs de la justice également tournant bi bu ñu ko perte c'est-à-dire si affaire Adji Sonko bi la ñuy jaar je ne parle pas de Sonko Adji mais parce que la vie continue mm-hmm. le Sénégal va perdurer nos enfants vont venir donc il faut dépasser un moment Adji Sarr et Sonko pour defar loo xamante d'ici soixante-dix-neuf millions an mm. suñu ay njaboot suñu réew dina teggi suñu dix te lu dix loolu du affaire loolu leneen lul